بإذن خالق البرايا باري خرجت يوم سبت ساعة من الأسرار لخدمة المختار في سهر السفر تاريخ باب موي جوني كي نيتي تيمير اك فوكي اداك نيت لي مولي وور ما ديغلو تاي ما ديلو ييتي نغنينا لوسين خالد اللوساتي كرير امير ديلا جيكا خملو مخمول لاجلين بيرو كلين امال لونجين امول كما يجا لا يتنجين ودم من كو خمول لا جل كو خم خو مولايام كتب الدنيا لا نتبوا mbaalu ko dal buum ko xul fulaayam nan jéema topp yàlla toppi ndigalam te jéema daw saytaane xamee mbugalam te jéema roy roy lu rijaalu laayi te jéema roy lu kullu jaanu laayi Faal sayar njaay ciy doomi maam Seynabu njaay Seex Ibrahima Faal Cheikh Ibra Fall oh Cheikh Ibra Fall Amadou Fall Seer Njaay cey doomi maam Seynabu Njaay Cheikh Ibrahima Fall Cheikh Ibra Fall yaa tax nu tabbi aljana yaa nu xamal ñun doomi soxna jaara Poroxaan li anna Ibrahima Fall la ilaamu ëllëg yawmal xiyaamati bilaa wa baxdu maa ngi dellu sant yàlla cantu gu ànd ak jooyi xol ngir la xol bu loolu moom a jooy la Basiiru Mbàkke moom laa doy la ko def mu doon mbegu muriidi te mooy dana mooy njaxaral mariidi cey ji la waay ñàkk ko doy nag jeex am ngërëmam lil xamulu doy nag baax le wayati laak bonam ngi war na mbàkke waraale gaay askanu ca kokki bis ba sëriñ Basiiru génne Tuuba fekk sëriñ bu mag ba sañcoon Tuuba ka joti jooy mbaa kol ña daanu waalo di walwali bawal ña gaanu góor jigéen ñeley yooxi werweli xoli jirim yeeg baayu yëpp yi warwali la dale biir jurbal ba yegg saalum ñëpp a wadab ku nekk fàttek baaxam wata yaa def ab soqu mel ni màggal jooyo ba del kenn tëlatul kamaandal sëriñ si ak dongo yi ñëpp boolo yu war forow da tomba maa ko بيسب كروغ نقر دنيا سنغال نقر وام كروغ مني فوكو مثال دبي باي شيخ فلو بشير شيخ فتوبا نقر دمنا سخل بسمبا وحبلنا نور على نورين نغن دفل سعادة دارين أبلي سفينة بكل الجنة من دارة المنن يا سلمنا أقطعني مركب في دار المنن إن تسل تدخلني دار المنن